jërë ngeen jëf mbokki internet yi gouvernement bu yees mën nañu ko xaar bu ñu sukkandiku journal bi di l'enquête mu ñuy xibaar nag ak remaniement boo xamante ni mënees na ko xaar ci gouvernement Macky Sall feek mu yàgg dara bu ñu sukkandikoo ci suñu naataange nekk foofu eh, ci journal bi la ñuy duppee l'enquête ñoom nag ñoo ñuy xamal ne gouvernement bu président Macky Sall eh, filee ki eh, fan wala sax mën nañu xaar filee ki jamono ñu daal di ko soppar ñi moom journal bi woy ba tey dañuy xibaar ni ki nga xam ne nag moo di président Macky Sall ca jamono jooje lancé na sax li nga xamante ni mooy consultation ngir jëm ci mbir mi ba tey xibaar bi euh, wala sax journal bi euh, di ñu xibaar ne euh, lu jëm ci benn nag seere li nga xamante ni euh, moo di la ceinture wala sax euh, remaniement boobee mënees na ko xaar nag fi lekk njeextalu euh, dialogue bi nga xam ne mu ngi war a jeexla le vingt cinq juin ak lépp loo xam ne mënees na fa tukki waaye nag ci remaniement bi mënees na ci xaar ñaar benn gën a ubbeeku wala sax gën a tëj li nga xam ne moo di gouvernement bi dugal bopp yu yees ay doomu aadama yees yoo xam ne daf leen di dugal ci gouvernement bu bees bi ñuy formé wala nag mu daal di nekk reflet sax li nga xam ne mooy aboutissement wu dialogue bi bi nga xam ne euh, jamono jili euh, ñu ngi koy euh, daal di amal loole nag mënees na koo xaar maanaam jëlak boobee juray waxtaan yoo xam ne dina waral ba remaniement bi ay yeneen doomu aadama ñëw bokk ci gouvernement bi wala sax gën a tëj bunt yi bu baax a baax fexe nag ba ñi lay wër nga bàyyi ci xel euh, jànn ñi nga xam ne ñoo gën a fidèle ci say fidèle nag ngir nga mën a affronter li nga xam ne mooy conjoncture bu métti bi nga xam ne ci nga nekk jamono jile journal bi di euh, xibaar ne lu ñu mel daal bokk na ci ñaari mbir yi nga xamante ni jamono jile moo taxaw temm ci kanam ki nga xam ne moo di njiit réew mi euh, Macky Sall waaye rek mbir daal leer na ba leer muy journal bi mu ngi xibaar ne nag lu wuuteeg ministère des sports ak élevage yi nga xam ne nag ñu ngi ko jokkandal ci crédit euh, premier ministre Amadou Ba loolee nag di gannaaw ba nga xamante ni ñaar ñi bokkoon ci gouvernement bi bokk ci parti bi di réew mi Idrissa Seck dañoo daal di démissionné. gannaaw jafe-jafe yu am uh, ci diggante ànd ku politique diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ba waral moom mi ne nag mu génn ci coalition ba gannaaw uh, ba mu jëlee akub dogal nag ne moom mi ne dafay bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu dëgmal loole nag indi woon jafe-jafe tax nag ba membre yi bokkoon ci gouvernement bi daal di cay démissionné ministère yi ñu gàlloo woon ñu daal di koy yokk ci crédit Amadou Ba premier ministre waaye nag journal bi nga xam ne daal lu euh, weesu euh, yu ni mel euh, daal jàpp leen ne li nga xam ne mooy département justice ak yi nga xam ne moo di nag sécurité yooyu nag moom ak diplomatie tamit nekk na yoo xam ne daal dafa war a nekk luy concerné le premier chef objectif bu njiitu mi Macky Sall nag moom bu ñu sukkandikoo ci journal ba tey bu ñu xibaar ne bokk na ci nag gën a yombal li nga xamante ni mooy euh, euh, taxawaay wala jëmmal li nga xam ne mooy conclusion maanaam kàddu yi ñuy tënkee foofu ci dialogue national bi nga xam ne jamono jile euh, mu ngay am waaye aussi fexe ba indi ay tontu yu leer ci li nga xam ne mooy ay émeutes yi fi am ci début mois de juin bile waaye aussi nag jéem a ñoŋalaat bu baax a baax li nga xam ne mooy karkaramu Sénégal fële ca tugal waaye aussi fexe sanctionné. su fekkee sanction dina am li nga xam ne mooy ay membre yu gouvernement bi yi nga xam ne nag mën nañu njortu seen jegewante lool ak kile di Ousmane Sonko di opposant ah, ci régime bu Macky Sall boo xam ne nag Euh, mu mel ni euh, seenub jegante Ousmane Sonko maanaam ay téléphone Ousmane Sonko ak ay ordinateur euh, machine ordinateur am yi nga xam ne nag saisir nañ ko ci biñ koy interpellé ci caravane de la liberté bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ngir man ko delloo fii ci Dakar ce këram saisiroon nañ ko muy téléphone portable am ak machine ordinateur am Euh, wane na euh, ay euh, jegewoo yoo xam ne am na ci diggante membre yu bokk ci gouvernement ak moom mii di Ousmane Sonko loolee aussi ca remaniement ba mën nañu saaxaar ay sanctions yoo xam ne ñooñu loolee dana waral ba kii di njiit réew mi jërëb dogal daal di leen sanctionné ñu génn ci gouvernement bu ni mel en tout cas bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xam ne moo di enquête moom mu ngi xibaar ne mën nañu si nañoo xaar ak remaniement bu gouvernement Macky Sall